di massawu en tout cas suñu mbokk yi nga xam ne dañoo am ay jafe-jafe muy ku mel ni Matar Ba ku mel ni Latif Coulibaly ku mel ni Serigne Mbaye Thiam ku mel ni Farba Ngom ku mel ni Mansour Faye ci siège am ak ñeneen ak ñeneen di di di aussi jëf yu ñaaw yooyu jëf yu bon yooyu nga xam ne dal nañ ci ay siège yu parti dal nañ ci ay këru jàmbur dal nañ ci ay ay édifice public yu mel ni gendarmerie lu mel ni ASP menace nañ ay tox muy loo xam nañ koy ñaawlu parce que saaga kilifa diine yi défi institution yi saaga jigéen saaga ñi feebar nekk ci hôpitaux yi te gënuñu leen loolu du comportement nit du comportement nit astama koo xam ne da ngay yootu pour jiite réew nguur gi liggéey bi muy def mu ngi koy def état li ma ko waxee ci tubaab rek l' état force restera toujours à la